taalibeeb maamam bu mag ba di Cheikh Ibrahima Fall lii kenn mësu koo foog waaye nag moom ak bëggam sëriñ Touba rek moom la wone ci Cheikh Ibra ndax xam gu Cheikh Ibra bëgg sëriñ Touba ni mu ko bëggee looloo tax mu feeñal lii ndax ku xam sëñ mu Mountakha xam ne bëgg na sëriñ bi bëgg goo xam ne kii nii bu feeñee lii lii ci Cheikh Ibra rek ak bëgg gu boppam gu bëgg sëriñ tubaa moom la wone ba tax na boo gisee colam gi mu solo sax dangay ngay daal di xam ne dafa delloo si démb ndax sëriñ bi kat ku ko mas a xam ci nitaal yi ñu koy nitaal mosoo gis mu sol dara lu mel nen lu weex maam Cheikh Ibra Fall mi kenn mësu koo xam ci gis ko ci nitaal yi ñu koy nitaal mu sol genn col gu ñuul kon dafa indi ñaari jëmm yépp la indi ak seenu melokaan ndax lu weex la sol lu ñuul la kaalawoo lu ñuul la teg ci boppam loolu lépp ñaari jëm yi la indi seenu melokaan ak bëggam nag ci Serigne Touba dong moo waral lii